la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye. tey dañ koy door ak yéenekaay bi nga xamante ne nii moo di direct news direct news nag di wax lapidation entre frères de parti euh, ci biir euh, yéenekaay bi di euh, direct news ñu ngi naan quand l'APR tue l'APR donc lii mu nekk maanaam ñu wane ci nataalu Amadou Ba ak ki nga xam ne mooy directeur général LONASE lii yéenekaay bii di direct news moo ko wax. yéen bi di bés bi euh, kii nga xam ne mooy El Amadou Sall moom mu nga ciy wax ne parti am amul lenn lu mu contrat boo xam ne waxante na ko ak APR nii Benno Bokk Yaakaar ci biir loolu kii di El Amadou Sall mu ngi wax ci entretien bi nga xamante ne nii def na ko ak euh, yéen bi di bés bi mu ngi xam le ne moom guddi yiñ toll nii dafa pare pour mettre fin. li nga xamante ne mooy confiscation démocratie bi nga xamante ne nii seetlu nañ ko ci espace politique bi. yéenekaay bi nga xamante ne moo di l'éveil moom mu ngay wone meeru ba di docteur Serigne Diop mu ne ci parrainage mun ne il s'agit de changer le visage du Sénégal loolu docteur Serigne Diop mu ngi koy wax waaye ci yéenekaay bi di l'éveil ba ba tey président ñu ngi wax ni lépp li nga xam ne président Macky Sall mën na ko indil Amadou Ba ci élection yi ñu dëgmal nii. yéenekaay bi nga xamante ne moo di yor-yor nag. yéeni kaay bi di yor yor Dame Mbodj mu ngi naan si l'élection l'élection est transparente Amadou Ba ne sera pas au second tour nee na élection yi su fekkee jaar na yoon Amadou Ba du dem deuxième tour waaw Aliou euh, Mamadou Dia di candidat au pire bi ñu ngi wax parcours am ci yéene bii di yor yor kii di nga xamante ne mooy candidat au pur bi euh, nga xam ne moom la sëriñ Moustapha si jël moom ñu ngay wax parcours am ci yéene kaay bi di yor yor fiche de parrainage yi nga xam ne nii gàntal nañ ko kii di leader bu Pastef bi ci yéenekaay bi di Dakar Presse Ousmane Sonko ñu ngi wax ne Sonko ne plie pas maanaam Sonko bañ na plié wu ci décision bi nga xamante ne am na te it attaqué na décision bi ci yoon attaqué na décision bi ci yoon pour que véritablement euh, li nga xamante ne nii moom mooy fii su parrainage yi moom mu jot ko moom jàpp na ne du direction générale des élections moo war a gàntal fii moo ko war a gantal lii di fiche de parrainage yenekaay bii di Le Regard moom ba tey ñu ngay waxaat les avocats de Sonko contre attaque maanaam décision bi nga xamante ne nii direction générale des élections def na ko lii di ay avocats Ousmane Sonko attaqué nañ décision bi kii yenekaay bii di Le Regard moo dellusiwaat ci loolu yéenekaay bi nga xam ne moo di critique moom euh, ñu ngay wax euh, ci parrainage yi pièces yi nga xam ne nekk na ci un parrainage de coup fourré loolu la yéenekaay bi di critique wax kon nag euh, parrainage yi nit ñi nañ ci teew tey bu baax a baax a baax waaye tamit euh, li nga xam ne mooy doublon yi nit ñi nañ ko moytu bu baax a baax a baax parrainé kii dem parrainé keneen voilà su ko defee nag parrainage yooyu mën na bañ a jàll. li yéenekaay moom ngay ñëwaat ba tey li quotidien moom ngay ñëwaat ba tey ci euh, coowal six cent millions yi nga xam ne moo dox diggante xbet ak prestataire bi mu ngay wax naan quand le prestateur va berner xbet yéenekaay bi nga xam ne nii mooy quotidien ñu ngi naan Sonko su tourne vers la justice ginnaaw bi nga xam ne ni écarté nañ ko ci parrainage yi Ousmane Sonko moom dem na ci yoon pour ñu jox ñu jox ko li nga xam ne mooy parrainage parce que jàpp ne amul lenn lu gantal li war a tax ñu bañ ko jox fiche de parrainage loolu la quotidien moo ko wax. yéenekaay bi nga xam ne mooy Walf Quotidien mu ngay wax ca yeewi askan wi nee na yeewi askan wi chacun pour soi maanaam guddiñ toll nii ku nekk daal sa bopp nga tal. kenn talul kenn mu ngay wane nataalu Ousmane Sonko sëñ si ay Aïda Mbodj ak Déthié Fall kenn ku ci nekk daal ca biir yeewi askan wi yaa ngay lijjanti sa mbiru bopp ci wàllu parrainage. yéene kaay bi nga xam ne nii moom moo di deux minutes mu ngay ñëwaat ci nga xamante ne kii di mooy docteur Sow mu ne cinquante mille avortements en un an traquer les les criminels docteur Sow en un maanaam kenn la ci ñoom. ci ñi nga xamante ne ni ñooy def avortement yooyu. yéene kaay bi di la mandat moom ba tey mu ngay wane kii di Malick di wax ci li mu projeté ci biir programme mu ngi koy wax ci yéene kaay bi di la mandat loolu kii di Malick Gakou di candidat à l' présidentielle mooy wax li nga xam ne projeté na ko ci programme am. yéene kaay bi nga xam ne moo di le Témoin mooy moom mu ngay wane ba tey nataalu Ousmane Sonko naan Pastef entre l'heure et l'heure lër ak lueur nee na ci la Pastef nekk kenn xamul ndax dafay lëri nit ñi kenn xamul nag dafa nekk ci loo xamante ne nii ah, ah ëmb boo xam ne day xëy rek wasin la sénégalais duñ xam fan la gars yi jaar. yéene kaay bi nga xamante ne moo di grand panel moom ba tey mu ngay wane nataalu Juan Branco mu ngay mu ngay ñaawlu li nga xam ne nii rétention wu fiche parrainage yi nga xam ne ñooy Ousmane Ousmane Sonko yi. ba pare nag mu daal di attaqué attaqué li nga xam ne moo di le bâtonnier yéenekaay bi di l'enquête mu ngay wane nataalu sëñ taxa di wax ne Touba lutte contre l'extrémisme religieux Touba porte le combat yéenekaay bi di 24 heures mu ngay wax euh, ne euh, kii di Ousmane Sonko ay ay ay avocat am saisir nañ euh, saisir nañ le tribunal administratif waaye mu ngi wax tamit les casse-têtes de la rentrée école bi ubbi teg école bi wax dëgg yàlla kër yi école yi nga xamante ne nii dafa inondé tout ça waaw naka la ci xale yi nar a jàngi jee yéenekaay bi di la dépêche moom ba tey mu ngay wax ci élection présidentielle nee ne la caution fixée à trente millions caution bi nga xam ne moom la candidat yi war a joxe pour bokk ci élec jongante bi pour laaj baatu réew mi nee na trente millions la moom mu nekkoon seen de presse ak Souleymane Ndiaye ñu ngi leen di jaajëfal ba suba ak jàmm incha allah. la revue de presse de Souleymane Ndiaye yéenekaay yi ak Souleymane Ndiaye.